Euh, di euh, delu seeg yéen ci sen euh, émission torche torche ñu len koy amal ñaaru ay bés yu nekk di fi dalal des acteurs politiques à Thiès et dans tout le pays tey jii nag ma am mbégte gu mag di dalal ko xamné responsable politique le au niveau de Thiès Nord nek dans le parti de l'Alliance pour le Progrès APR koku di Ndiaga wad sëñ bi Ndiaga maa ngi lay nuyu.

du question bañ leena a dara la hein, j'ai cherché essayé naa ba sonn hein, euh, ci loolu lay dooree xana yeen da ngeen na jafee gis parce que euh, may nuyu sax euh, Abdou Mbow hein, le député l'honorable député vice-président de l'Assemblée nek doomu Thiès mais ma am jafé pour dalal ko yeen da ngeen na jafe ah yéen waa APR wa xeyna xeyna du jafe waaye des fois xeyna na moy bari sen kaw ba yeen say yi muy xaw a mais koo xamante ni da nga yor yëfu askan wi boo sañoon foo toll da nga communiquer. mais justement njaga ah. yore yëfu askan askan wi ñoo leen fal. Mhm. ak jafe-jafe wala occupation yu ngeen mun di am aussi bu leen askan wi soxlaa dañu leen war a jot. waaw xam nga soxla askan bi. yow mi njëkkoon naa laa jéem a jot. Euh, mm. mais xawoon na jafe tuuti ah may profité jaale la parce que à un moment donné. Mm, am na lu fi xewoon ma la koy jaale. jërëjëf jërëjëf xam nga si as yor yëfu askan bi yemul si plateau télévision yi. Euh, parce que xëy na préoccupation barina si yu baree bari yo xamné xeyna xëy na bu nu bàyyee dina mëna démé demee lor rek la japp ni foofu lañ ko wara mais lolou du samay wax rek dañ njàng nga baal parce que euh yamul ci plateau euh, télévision mais damay dégg aussi même dans les autres euh, télévisions mm-hmm. quelquefois c'est des difficultés mais ñun ñu yore télévision euh, régionale. Mhm. ñu am des responsables politiques yoo xam ne ils sont au niveau régional war nañ ko yombal. parce que li ma lay laaj du pour man ay. Hein, dëgg la ñuy seetaan en tout cas ñun euh, ku mel ni man. Mhm. man damay am fierté. Mhm. taxaw ci télévision régionale bu mel parce que tamit euh, bu fekkee ay doomu Thiès ñoo ko taxawal. mën na noo dem ailleurs. ñu taxawal ko fii dëkk bu mel ni Ceeskaay yi ñu dëkk ñun ñëpp tamit man ci si fier bala may dem feneen taxaw si plateau yu mel nii pour gën a mën a wax ak waa Cees yaakaar naa ni man loolu sama fierté la mais defe naa si sawar yow responsable politique nga mm-hmm. waa Cees yi la nga nekk ci APR mm-hmm. xaj na mun naa espérer na ci fan yi di ñëw dinaa am ñeneen ñoo xam ne ay responsable politique lañ au niveau de l'APR ma teg leen ci incha allah di seq waxtaan pas pour man mais pour askan wi di nga amaat yeneen responsable yu mel ni man. Mm. ñeneen ak ñeneen dinañ ñëw fii incha allah taxaw waxtaan ak yow. très bien euh, en tout cas pour yow moom vraiment am na mbégte gu mag parce que wan nga ma sa euh, disponibilité. Mm-hmm. que euh, tamit loolu mooy doxal mbir yi weccoon tey xalaat ñi ngeen xam ne yéen leen fa toogal. Mm-hmm. ñu xam naka ngeen leen fay toogale. ci loolu laay doore yow Ndiaga conseiller municipal la. ci mairie Thiès Nord. xam nga foofu tamit askan wi ñoo la fal. dëgg la dañu ngeen ne tegoon seen ñu fal leen ngeen dem toogal fa askan. mais foofu vous êtes dans l'opposition. parce que ñi ñi yore mairie bi euh, c'est est réew mi ñoo fa yore. waaw réew mi ñoo yor mairie bi foofu. ñun opposition lañ. mais pas opposition bon, mais d'opposer day opposé bu ñu gisee loo xamante ni baax na. dinañ si ànd taxaw voté ko comme tout le mm-hmm. mais bu ñu gisee loo xam ne aussi tamit jàpp nañ li gënul si askan yi mm-hmm. dinañ ko opposé wu ba askan wi yëpp xam ne lii moom ànduñu si quoi. kon dañuy xar euh, waxtaan bi ci ñaaru pàcc. Mm-hmm. benn. APR au pouvoir au niveau national, mhm. Ben APR opposition au niveau euh, de la mairie d'arrondissement de Thiès Nous, ñu wax ci APR au niveau national mhm. au niveau national y a yore yéen a yore nguur bi mhm. mais euh, actuellement am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ñaxtu ñaxtu yi bëri na ci dëkk bi euh, njaga mooy qui seen nguur gi ni muy doxee gaa ñi nee nañu yu li sooxe moo ëpp li dox noo gisee loolu waaw loolu xëy na la Sénégal euh, bi ñuy fal président Macky Sall en 2012 ku ne gis na ni réew mi meloon réew mi metti woon na de telle sorte que xëy na Macky Sall bi ñu koy fal si niñ ko fale woon jàpp nañ ni war na mën a indi solution si jafe-jafe askan bi réew boo xam ne nag dañ la ko jox en 2012 réew mi amul courant am réew mi presque mën nañu amul ndox mm-hmm. réew mi mën nañu infrastructure routière yi manqué na réew mi mën ni presque beaucoup xoolee moyen de transport yi jafe na. maintenant beaucoup mel hérité pour nga doxal ko. dina xawa jafé ci lu bare bare. mais yooyu jafé jafe yooyu nga wax yépp ce président ma nga ci won parce que avant muy nek au pouvoir euh, nek président de la république. il était au pouvoir. avec Ablaye Wade. wa il était au pouvoir avec. kon jafé jafé yooyu yépp fekkoon na ko fa. wa bo xolé président Macky Sall bi muy. nekk premier ministre Abdoulaye Wade. fekk na presque trois premiers ministres jaar fa. muy Mame Madior Diabaye jaar na fa Idrissa Seck jaar na fa. moom président Moustapha Niasse jaar na fa. Mhm. ñooñu ñëpp mais boo xoolee les grands projets. yi Ablaye Wade taxaw di bàkkoo naa ñu ne réussir nañ ko. Mm-hmm. ñu ngi ko amee si bi président Macky Sall nekkee premier ministre Ablaye Wade. da nga bëgg a fàttali la Ablaye Wade waxoon rek quoi ne way li ma xalaat yépp kii moo ko mettre en œuvre. way way effectivement loolu moo am parce que boo xoolee aéroport Diass bi. Mm-hmm. président Macky Sall moo tegoon premier père bi. Mm-hmm. autoroute à bi aussi tamit. moom moo ko commencé woon bi mu nekk premier ministre. yàlla def na aussi tamit bi mu nekkee président tamit lim si yokkaat ñëpp teg nañ si seen bët daal. Euh, waaw loolu de ju ngi fàttali ko ci jamono. ab euh, Ablaye Wade waxoon na lu xaw a mel noonu sama xalaat yëpp li ma kii euh, Macky Sall moo ko. commencé mettre en mais terewul en un moment donné mu génn wàcc leen ñu doxal moment bi mu génnee. wàcc leen ñu doxal ci la mbir yi gënoon a sotti moom il a hérité des choses yoo xam ne tabaxoon nañ ko ba pare. te nekk fa woon non non tabaxoon nañ ko. Mm. ak commencé nañu du benn. parce que euh, état continuité Le mhm. président Macky Sall il xoolee bi le euh, Sénégal. Mhm. boo xoolee ci infrastructure routière. Mhm. Sénégal a 34 km de autoroute. actuellement il y fini 200 et quelques kilomètres d'autoroute.

du loo xamante ni Sénégal moo génnee xaalisam ñëw di si dépassé. mais ñoo koy fay. waa ñun ñoo koy fay. Mm-hmm. mais ak niñ koy fayee. Mm-hmm. waaw parce que da ngay jaar dem fay si loolu la ni si état bi di si encaissé ay taxam et cetera te réew noonu lay doxee. parce que tamit euh, boo xoolee Sénégal euh, bi ñu amee indépendance yàgg na depuis 1960. Mm-hmm. am na si infrastructure yoo xam bu président Macky Sall fekkoon ñi ko fi jiitu. defar ko ñu romb ko kon bu ñu ñëwee ñun ñoo ngi xalaat si leneen mm-hmm. mais bi ñu ñëwee fekk ñu fi ay tali fekk ñu fi courant te léegi li nga xam ne mooy lëkka locomotive bu développement mm-hmm. loolu fekk ñu ko fi loolu nag foog moom mu jëm koo réaliser ba pare pour mën a keneen mais sur le plan euh, de la conception ak mm-hmm. doxalin euh, le président euh, Macky Sall man damay wax Macky Sall chef de parti Macky Sall chef de parti bu APR. mais ci ni nga xamné ne don nako don nako bagn en tant que politicien. on a comme l'impression que étant euh, chef de parti mon koy bagnal ses ses ses partisans parce que ku d'accord ak mom ci li nga xamné ne wax nako sur le plan politique. mu rëq sa ndig wala mu mettre la en quarantaine. non rëqul ndigg kenn xam nga Sénégal aussi dañuy jawalé euh, ki nga xamné ni daf ko dab. ak li nga xamante ni moom la xamal sa ñun avant ñuy ñew ci pouvoir amna ñeneen ñu yoroon rew mi. Mhm. di ko doxal. Mhm. xëy na nag boo yoree réew di ko doxal man naa am ay rëq-rëq dox sa digganteeg xëy na si sa gestion et cetera. Mhm. loolu bu nu ñëwee tamit euh, sénégalais yi far ko loolu dafa bokkoon si demande sociale bi sénégale yi doon demandé. ni nañu xool nañu fexe ba am gestion boo xamante ni gestion bu baax la. te ñi nga xam jaar na nañ leen jàmbaar. ñu xam nañ fi liggéey la. loolu nag bu ci doxalee tamit. Euh, sénégalais ça c'est l'état acharnement moom ci bopp moo waxoon euh, euh, la patrie avant le parti mais dafa melni lepp dafa jaxaso fim nek ni nii patrie beeg parti bi yëpp ben la parce que limuy wax ci ci patrie bi moy état bi niñ koy doxale ba mu avancer mais ku ci wax lo xam mengoul ak bëgg-bëggam sur le plan politique mu jël parti bi tek ci kanamam non bo laajee ñi bokk APR yagg fa depuis 2009 ni depuis 2008 ni depuis 2007. Mm. boo leen laajee ñoom ndax Macky Sall la mu la la la patrie avant le parti. Mm. ndax mom lay doxal ñom ñëpp dinañ xam ne président Macky Sall parce que amul kenn ku ci mën a. man mais man bénéficié wu na parce que fim mu nekk mbir mi jaxasoo na euh, si on parle un peu euh, du troisième mandat bi nga xam wax nañ ko lolu c'est l'État.

li nga xamante nii moom la ñu sénégalais yi teg. Mm. pour ñu liggéeyal leen. Mm. jëlee sénégalais yi si yenn saa si yenn coono yi ne moo gën a nekk suñu priorité ñu nekk fi di débat si débat troisième mandat. kon moom mm. moom heure bu wax yow tey jii bu Macky Sall toogoon foofu na la sa mairie bële wala loo xam ne day doxal Thiès bu fekkee ne dafa war a wax ci waxu waxu politique sama parti bu ci kenn wax yow doo ci wax. noo loolu du wax politique xam wax politique mooy wax boo xamante ni peut-être dafa leerul. mais loo xamante ni ñun suñu constitution tracé na ko ba mu leer. ñëpp xam ko. kon lolu yaakaar naa du débat bo xamné ne war na ko wala muy tara tardel ay partisans yi nga xam ne ñoom yor pour wara doxal. très bien euh, Ndiaga wad responsable politique euh, de l'APR. Euh, nek conseiller municipal. Euh, suñ la falee conseil municipal mooy am nga kàddu ci euh, APR. Mhm, effectivement est-ce que yéen di ngeen dajee seen parti bi di ngeen dajee waxtaan loo xam ne véritablement c'est en démocratie ngeen koy ku nekk libre wax li nga xam ne moom nga sentir. waa dina am mais mhm. bariwul. Mhm. waaw bariwul comme euh, des fois dina am. bu élection yi jub see dinañ daje ba organiser wu xool mais daje comme li nga wax moom dëgg yàlla loolu problème. et le parti à à Thiès naka lay doxee. parce que man man j'ai des difficultés daal pour xam véritablement les responsables de l'APR à Thiès dafa vous êtes inexistant. waaw non on a existé mais. Hmm. léegi euh, comme animation parti bi ni mu demee. Hmm. actuellement à Thiès. Hmm. ku ne xam na ni doxewul ni nga xam ni moom la gënalee ñun ñi. ngeen ragal ñi fi nekk. non non du loolu. parce que fii gars yi nee nañu réew mi moo fi nekk ku nekk yaa ngi doxal si sa côté. Mm. ak ni nga ko sentiré. Mm. xëy na bis bu daje jotee ñëpp dinañ daje. mais li gënoon tamit te ñun ñëpp ñu xam ko waroon nañu mën di def des programme commun. Mm. di doxal parti bi ñëpp xam ni lii mooy APR mi ngi dox comme ni. responsable politique APR yi nekk fii. ay dégg ay Ndeye Tické Ndiaye euh, mu ngi cees Thiès euh, du Mbow mu ngi cees am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk Thiès bi doo toog ba dégg ne ñooñu sax ñu ngi dajee fenn jéem a xalaatandoo lan mooy doxal cees euh, parce que ce sont des responsables politiques nekk dans l'appareil de l'État mais après tout ay waa Thiès la ñu. non ñu ngi xalaat liy doxal Thiès ñoom chaque jour ñu ngi si. Hmm. parce que boo xoolee euh, liy doxal Thiès mooy problème yi Thiès am. Hmm. ngay xool lan mooy seen taxawaay ak lan mooy seen point de vue.

mooy moo au pouvoir mais à Thiès vous êtes dans l'opposition non Thiès xam nga nous ñun opposition lañ fi d'accord nañ ko mm. mais l'opposition, opposition du la très la aussi tamit mm. ngay xool nan ngay def pour devenir majoritaire mais on ne vous entend mm. pas critiquer euh, la manière la gestion de de de de Thiès on ne vous entend pas Et pourtant a au niveau national Euh, Macky Sall bu deful dara parti d'opposition yi dañuy dal ci. APR bien sûr pouvoir loolu lañ dëkk. parce que ñun chaque chaque jour lu ngeen waxal waa Thiès. chaque non chaque jour nga dégg ñun. ñuy critiquer doxalin surtout sama commune man bi ma nekk. Mm. ak nu suñu maire bi doxalee. doxalin yoo xam ne dara jaaru si yoon. Mm. chaque jour nga dégg ñu taxaw di dénoncer loolu. Mm. bokk na si benn ko ah, lan ngeen dénoncer Thiès. waaw bari na bari na lan par exemple bari na presque boo xoolee lan moo si lan moo si mujj fii nii chaque jour mi ngi dox euh, boo xoolee maire bi. nous avons un budget presque 500 millions de pendant 6 ans que nous avons presque 3 milliards d'euros. selon mm-hmm. mais pour le voir c'est réalisation mon autre affaire d'affaires de l'italien qui est non d'affaires de l'italien non non d'affaires de l'italien aménagé wu trottoir yeeg yooyu. am na ñu def kam aménagement bi nga fi ah. gis ci territoire yi. Hmm. loolu programme PACASEN la président Macky Sall moo dooleel commune yi. Hmm. xoolal ni commune yi ay opposants ñoo ko yor et cetera lim ñu war a dooleel si commune Thiès Nord def na fi dugal na fi xaalis bu bari. Hmm. ci loolu lañ mën a appuyer pour defar territoire yi nga gis ci jaar jorowee ci réseau national bi. jaar taax kaw jëm ba kaw sara mais loolu la ñu am voilà loolu loolu grâce à appui de l'état président moo ñu si jàppale bañ koy def mais en tant que commune mm. yow mi nga xam ne yow yaay jël recette askan bi mm. ñu la koy fay nga la kii loolu war nga mën taxaw def sa bilan ni li recette bin ñu ma jox pendant six ans lii laa si defal askan mais loolu lañ gis ni loolu moom amu fi loolu amu fi très bien ñu dugg ñu dugg ci sa commune euh, Thiès Nord le conseiller municipal am nga fa commission boy boy gérer foofu waaw non man gérer wu ma commune mais maa ngi si biir commission al et marché comme rapporteur hmm. mais foofu boo xoolee sax commission yi ben commission doxu fa benn doxul ci seen maire seen commune. dara commission doxu fa dox normal. amul commission bu fay liggéey loolu loolu rek problème la. non njaga loolu moom mënu ma ko mënu ma comprendre benn commission doxu fa te pourtant Thiès noonu euh, il y a des réalisations am na ay actions. ban réalisation xam commission. dañuy wax ni ñun euh, texte li wax. Hmm boo def dara marché comme commission bi nga art et marché war nañ ci ñoom joxe point de vue réunir taxaw wax ni ak ak et point de vue mais amul yow mi ci commission bi da ngay rek gis mu taxaw di def et cetera kon commission comme opposant yi au plus haut niveau di attaquer sa parti quelquefois fois, wax mais mais commission ba nga nek ties Nord euh, su ngeen di voter le budget di ngeen xayma xool ay priorité Uh-huh. gaa ñi waxtaan nañu ñun suñu priorité au niveau de la commune lii la effectivement et là à partir ñi nga xam ne ay ay war ngeen a teg seen bët xool ndax li ngeen voté woon fay avant ñuy def débat orientation budget wala ñuy voté budget hmm. commission bu si nekk waroon nga réunir waaw xool lan moo nekk seen priorité et cetera ñu xool nan lañ ko mën a defe si budget bi wala li si a li si war a mën a nekk ak li si warul mën a nekk mais loolu laan la amul naka la fa loolu mën a nekkee te kenn déggu ngeen wax ne amul. non chaque jour ñu wax ko da nga ah. dénoncé ba sonn mënoo si dara. Hmm. c'est que ñun ñun ñun la yàlla nattoo maire bi gën a tële si Thiès xëy na yàlla moo ñu ko nattoo mais il faut ñu accepter ko tamit te liggéey tamit jéem a xool nan la ñuy def ba jëlee ko. fi nga ne maire bi gën a tële Thiès Thiès Nord maire Lamine Diallo toog fii wax li nga xam ne. li def na ko mais maire boo xamante ni yow sa vision passé wul entre rond point Ngent jëm rond point Jaxaaw foofu rek la yem. defar fleur rose et cetera leneen lan ngeen. loolu la euh, maire bi centre de santé yi euh, le maire Lamine Diallo wax na fii. centre de yi non centre de santé yi ñu ngi souffrir et cetera li leen war a appuyer lu bari ñu ko xam nga wax yomb na taxaw fii nii maa ngi appuyer centre de santé et app appuyer mais boo demee centre de santé appuyer centre de santé. boo demee centre de santé yi. nga gis ña fay liggéey coono yi ñuy daj. amuñu sax ay salaire yu baax et cetera te au moins waroon na si mën a jël ay deux trois personnes en charge au moins ñu leen ci jàppale loolu la. mënoon nekk jël pour lan pour euh, embaucher non non non. xam nga centre de santé bi jox leen ay moyens. pour ah, askan wi xam nga xam nga xam nga santé. Hmm. si que si kii transfert yi la bokk. ñun waroon nañ ko si mën a jàpp bu baax a baax ba askan wi yëg ko. parce que fi ne nii boo demee si hôpital yi li ñu yaakaar pour dund. Hmm. mooy malaat bi ñëw. ñu daggal la ticket bu seer jaay lay garab et cetera et loolu. loolu nag ñun en tant que maire li sa woon sa role mooy nga jëm leen a appuyer ba malaat bi bu ñëwee peu de moyens yi mu yore dina mën a faju ba wér. te mais loolu laa la wax ne wax nañu fii ne appuyer na parce que bu ngeen wootee seen euh, orientation budgétaire ne dina njëkkati nangam. jàppale ko la santé. xaalis boobu quand même dem nga bu ne nga am jabar bu si buru wala bu feebar na dem si hôpital yi nekk poste de santé yi nekk Thiès nga xool. poste de santé boo si def amuñu benn appui boo xam ne commune bi mi ngi leen koy appuyé coono la dundee moom la ñuy daj. poste de santé rek la ñuy yaakaar centre commune euh, Thiès Nord. centre de yi nekk Thiès Nord. mais boo xoolee waxuma Thiès Nord rek mais Thiès yëpp la. nord yëpp si am. non non yeneen maire yi appuyé nañu ba appuyé sax jox ko jox xam nga ambulance yi fi nekk yëpp. gis nañ ko ay don la yoo xamante ni ay. benn doomu Thiès moo koy génne joxe ko etc mais ñoom par rapport ak li nga xamni mom la askan bi di len jox ci ay recette nga gis ni li lañ ci def jappalé ci askan yi loolu Thiès Nord amu leen ay amu leen ay euh, ay niche de recette yu bari yo xam fa ngeen wara mëna mun dafa am lo xam non am nañ ay niche parce que marché central ci Thiès Nord la bokk hmm. recette ya fay jógee yépp fa la bokk té loolu du lu ndaw hmm. voilà marché commune Thiès Nord budget presque tout moko ko 500 millions Mm. ren jii avec le programme Pakistan ëpp na 500 millions. Mm. lama ma ni mënoo yor commune pendant 6 ans presque 3 milliards jaar na sa loxo. Mm. même bu dee un milliard rek nga def ci investissement. war nga mën a taxaw mu gis loo xam lu visible la lu wan ni lii maire def na ko fi. mais yow mi may laaj sax mun kenn mënut a wane loo xamante ni dañ naan lii si commune bi ñoom ñoo ko fi def en mais li may wax ni est-ce que ci seen conseil municipal bu ngeen nekkee. orientation budgétaire wala ñuy discuter ben ben projet est-ce que cadre yi di ngeen ko yëkëti fofu non cadre yi yëpp dañ ko yëkëti dañuy wax comme ñun askan wi fal di nga wax li nga xalaat. mais nak comme ñom ñoy majorité. ci far far lo lañu démé même bu féké arrangé wul askan bi sax comme ñëpp hein? ñoom danañ ko parce que yow aussi sa parti bu ñu assemblée même chose la wax hein? ah, majorité majoritaire opposition bi nee dañuy wax ngeen ah. utiliser cette seen majorité voter li ngeen di voter dem seen non non non man nekuma assemblée non sa parti mais xam nga ne loolu la ñuy def à l' assemblée. non wala defuñu loolu. à l' assemblée majoritaire. assemblée sax suñu indee dara bu gaañu waxee. débat ya fay am ku si nekk di nga wax sa xalaat nit ñi di ko dégg. ne muy opposition mais ñu def li nga xam ne moo leen arrangé. waaw non non mais xalaat yi ma nga fay jënd. ñëpp di ko gis mais fii. xalaat yi même bu jëndee dara duñ ko si appliqué. amul dara luñ ko si appliqué c' est le maire qui xool lu ko neex mu ne. par rapport man naa la aussi mooy rendre compte. municipalité bokk ute na sax ak lële parce que c'est le maire qui rend compte dans tous les cas ak say compétence yow boo demee ba en tant que maire. ngay porter affaire mbalit. bu nekk comme Medina Fall. jël bëgg a def même pas fu nit ñi dëkk même pas 30 mètres. nga bëgg a def dépôt ordure. loolu maire bu xam dara loolu wala buy xalaat dara est-ce que loolu. ana dépôt ma nga fa ma nga fa boo demee Medina Fall excitation. dépôt ordure boo xamante nii. nit ñi mi ngi sës ci këru këru nit ñi même pas dix ak ay kër nga bëgg fa kere benn mbëbës ah loolu am na cees Nord am na cees Nord fan la fan la nekk Médina Fall extension man ngeen mm. jël seeni i ngeen dem xool ah yow nga ñu wax te loolu dépotoir bi fii fii fii fii sën bi nekk am na ay kër yu nekk ay kër ko entouré ak daara sax yoo xam ne ay xale yu ndaw ñu nga fay jàng mm. te boo xoolee C'est comme euh, compétence transférée. Mm. Une affaire ville mm. mais en tant que commune. Ben, GIE ñëw fële nga bëgg encadrer ni da nga leen Fall fa nga ay mm. nga bëgg fa créer askan mënu ko passer te kenn ko ku dul suñu maire bi. Ah, ba bëgg ko justifier. di wax dem si plateau yi foo dem nga wax. dégg la ko xaw justifier. ne justifier. non justification bi mu

si wetu daara ba kër Diop. Hmm. foofu la dépôt ordure ba nekk. te boo demee foofu li ko entouré si ginnaaw ay jardin ñoo fa nekk yi ni bayee salade yi et cetera. Hmm. même mbalit ñëpp xam nañ ni fu mu taxaw. Hmm. bu fa defee ak at teen yi nekk si wet yi sax day yàqu kenn dootu si mën a naan. mais loolu nit ku conscient war na mën a taxaw tuuti taxaw di wax loolu en tant que commune nga taxaw di wax naan fii la ñu war a def. mais environnement am ngeen commission environnement. commission xama commission environnement. est-ce que lolo buñu togué ci biir euh, conseil municipal bi dañu waxtaan ni lii kat. xam nga rafetul sunu sunu askan. xam nga xam nga commission waxna la sànq ni la amul ben commission bu fay dox. du commission environnement du commission domaniale du ben commission bo xam ne ma ngay dox parce que lolo amul bo de liñ leen wax ban fa mujjé jëm leen indil ñu ben papier buy wone ni ministre de l'environnement wone ni accepté na fii na mënuñu ko indi kenn mënu ko indi parce que lolo kenn nit waru ko xalaat très bien li ñuy def euh, mooy rek. très bien boobu benn la boo xam euh, en tant que opposition. parce que yéen ay opposant mm. ngeen foofu ci seen commune bi. en tant que opposition boobu gisu leen a dox. lan nga mu mën wax loo xam ne au niveau de la commune. Thiès Nord parce que maire bi dalal nañ ko fii il a il a parlé de son bilan presque hein, ak yi nga xam ne yëpp def na ko. muy lu rafet wax na ko fii. Mm-hmm. yow yaa ngi mm-hmm. ca conseil municipal. xam nga wax xam nga wax. wax yomb na. def naa lii def naa lii ñu déployer caméra yi nga wax et cetera mais de boo demee sur terrain ñun ñu fay dund. la loolu lu visible lu nu mën a wan ni lii commune Thiès Nord moo ko def loolu kenn gis ko fi. ah man de li ma fi gis mooy fleur yi nekk. yow fan fan fan nga dëkk ci ci ci man maa ngi Médina Fall laa dëkk. Hmm. Médina Fall boo xoolee mooy quartier bi gën a populaire si Thiès Nord. Hmm. plus de presque soixante mille habitants ñu ngi dëkk foofu. mais yow li nga may wax ni lépp bi ñu commencé wax ba léegi dafa mel ni Médina Fall rek nga may wax Médina Fall de Médina Fall à Jaxaaw parce que boo xoolee cimetière Jaxaaw yi waa Jaxaaw pendant de bi ñu faloo ñun en tant que 2014 hmm. cimetière Jaxaaw yi waa Jaxaaw pendant de ay at ñu koy demandé ñu nuy demande ni ñu nañ leen defaral buntu cimetière yi parce que bu nawet bi ñëwee. bu bokkee defar nañ ko fi mu nekk nii tali nañ ko ba mu yegg. non dama ni. Oh. pendant des années ñu ñuy demande pour ñu defal leen fa pavage loolu hmm. commune bi mënoon na ko le fait que léegi Promovilles ñëw intervenir. Hmm. dogo ko defal ñu fatali et cetera lolu mo ni ci génne. Hmm. té lolu commune bi mënoon nako c'est le minimum. Hein? mais yow mënoon na mais. mënoon na ko ak ay collaboration. def nako lolu lolu parce que nak nelaw gaay yi tëmul tëy rek dafa am na. peut-être ay euh, levier yu ñi actionné. ba non loolu loolu xam nga ñun fi euh, état mo sapoté ñëpp. légui biñ xamé ni ñom peut-être buñ leen sétané askan wi duñu juk ci souffrir. ci hmm. souffrance la ni dul si la Promoville intervenir. xool yi nga xamante nii xëy na njàmbato askan bi la benn muy éclairage public bi ñu defuñu si lu bari benn muy yenn si euh, route yi nga xamante nii xëy na lu ndaw la waroon dañ ko mën a def defuñu ko état daal dañ si accompagner xëy na ak private promobile ñu jéem a defar loolu. mais mais nag euh, tamit euh, Ndiaga xam nga ne mairie d'arrondissement yi tamit amuñu amuñu koppar yu yu bëri yoo xam ne mun nañoo def. boo ko defee lu ñu mën rek mooy. acte ay priorité lan mooy priorité am acte 3 bi daf leen gëna gën parce que bo xolé euh, avant acte 3 bi di ñëw marché yépp commune mo leen yoroon bi acte 3 bi ñëwee lañu diviser marché central ci commune Thiès Nord la bok nga jël euh, marché Belé Grand Thiès bok commune Thiès est ouest mo santé bok est non lañ ko défé ku si nekk mën am pour nga mëna am ay recettes ñu ngi am ay recettes di si génne mais recette yooyu lan leen wax ne après bu boole kook ak euh, li nga xam ne état mi ngi leen koy appuyer chaque année loolu mi ngi am. loolu nag lan la wax nii la yooyu ñu la jox war nañu mën a xool ni ñun kat lii investir nañ ko defal nañ ko ci askan bi mais mënoo di jël marché centrale en tant que marché. nga fay jëlee sa recette yi ëpp doole. presque bi ñu faloo ba léegi mënoo ni lii yokk naa ko si man presque problème bi waa Thiès gën a soxla ñu waa zone nord muy marché du poisson. mais lan la ñu def waaw espace yi nga xam ne amoon na marché centrale marché marché boo xam ne amul marché de poisson lan lañ jël wut seen promoteur ñu defal leen fa def ko marché boo xam def ko ay cantine loo xam ne ay cantine yaa ngi biir marché tëjee kenn jëlu ko mais loolu la ñu wax ni bu fekkee yow askan wi moo la tax a jug da ngay xool li nga xam ni moom la askan bi soxla nga defal leen ko mais loolu. moom Madina Fall Madina Fall ay taax kaw yooyu am na marché. waaw am na marché. marché non Medina Fall. Medina Fall amul marché. Hmm. te et puis foofu aussi ñu wax fa boo demee Kër Issa am na marché taax kaw am na marché muy marché ngelaw. Medina hmm. faal ñu ngi Medina Fall extension ñu ngi fa bëgg a def marché mais boo xoolee marché bi ñu fa bëgg a def hmm. ay abri ay abri ay dénk. en tant que yow boo xoolee marché Sandaga bi ñu leen délogé fi ñu leen yóbbu xam nga dañ leen di defar ay genre abri provisoire xam ne fa la ñuy nekk provisoirement pour bu ñu tabaxee marché bi. mais genre marché yooyu la ñu bëgg a defal marché Médina Fall pour marché définitif ay dénk loo xam ne bu benn tàkkee. mais il faut commencer par quelque chose xam nga li tax ma lay laaj loolu mooy euh, les mairies là quelque fois aussi euh, lépp ñoom dañ leen fal pour ñu dimbale askan wi. Hmm. askan wi bu fekkee dafa nekk fu sori nar a dox ay kilomètres pour dem marché. quand

mais boo mënee négocier ak sa partenaire mu defal la Kër Issa marché bu baax. boo xam ne dañ ko tabax ba mu baax nga mën a négocier ak say partenaire Médina Fall bi nga xam moo gën a ngan ñu defal leen marché bu baax mais marché boo xam ne ay état la ba pare mu amaat beneen arnaque bu fa nekk ay sàcc la loolu. bu ñu demee ba sa kanam xam naa ne dinañ ci gisaat leneen loo xam. xam nga yaa ngi leen di accuser yow lu la wax ay sàcc. sàcc gu ñu ne ay sàcc non sàcc mënul paase. sàcc askan mënul paase. ngay defar sa marché. wax population bi ni leen ku bëgg kanti indil dix mille francs pour frais de dossier. te dix mille francs yooyu nga indi. mu garanti la pour nga am cantine. léegi ñaata personne ñoo dëkk Médina Fall soixante mille habitants bu trente mille yi indee seen i dix mille francs. rek loolu mën na tabax marché. loolu si ban condition loolu amul. benn arnaque ku bëgg mais dix mille francs yi ñu laaj si ban condition lan laajee dix mille. xanaa bu nee indil dix mille francs war na mën a nekk loo xam daf lay garanti pour nga am cantine. déet boo joxee sa mais bàyyi bàyyi benn nit ak askan bi xam nga mënoo jël sa promoteur yow en tant que maire li may wax cuuna bi fa la nekk. yow en tant que maire askan bi moo ñoo la far. mënoo jël benn waay rek nga sànni ko sànni ko askan bi ne ko demal nga rey leen defal lu la neex jëlal seen xaalis nga dem. parce que mënul paase dem loolu amul fenn. non loolu moo am. effectivement xamal xam nga wax ji bu ma la ko waxee nii li tax nga ne amul fenn yan wul maanaa si dégg-dégg. mais boo xoolee boo demee promoteur ba nga fay fekk. mu jël ay dénkam ak ay weñam ni dafay defar marché kenn fixé lu ko prix boo xam ne moom lay jaay kanting promoteur bi mooy xool kanting prix bu ko neex yow nan ngay defaree kanting gi dénk ngay taxaw nga ni kanting yi ay 7 millions laa koy jaay ay 3 millions loolu loolu la ñu wax. loolu moo fa am boo demee. loolu kay seen loolu la ñu wax wala yow sa xalaatu boobu. nga jàpp waxuma sama xalaat dama ne lépp lu may wax man. Hmm. man nga ko vérifier. Hmm. boo demee ba foofu bu fekkee amul man nga ñëwaatal ba fii nga ne li Ndiaga Wade waxoon amul. Hmm. maa ngi am Medina Fall te mën naa ànd ak yow dem ba foofu ay cantine yu dénk fay def bu benn tàkkee lépp tàkk ba pare ñuy arnaqué askan bi di leen laaj ay dix mille francs pour frais de dossier yoo xam ne garanti wu la nga am cantine loolu yaakaar naa ni dara. gën kan mooy laaj frais de frais kii euh, dix mille francs yooyu. xam nga mairie bi la wala wala. xam nga ñun dañoo am maire boo xamante ni dafa muus. xam na ni moom bu fekkee dafa taxaw di laaj dix mille francs yi nit ñi dinañ xam fa mais benn promoteur lay jël rek sànni leen ko. promoteur bi nak mom moy def recouvrement yoy francs pour mais base bo xam manière juridique des xamanteni permettre. mais la te yow papier ni yow yow bëgg nga place. te ñun porter plainte. parce que lolu aussi tamit du lu yoon nit war nga askan francs ci cantine yoo xam ne pareegul te 10 000 francs yi garantie wu la nga am nga am cantine loolu buñ fi jógee ñun waxuñu rek nii yem si loolu moom dina arrêté parce que tamit fa lañ dëkk duñu nangu kenn ku leen di leen arnaque si façon. jërëjëf euh, yéen a ngi seen émission euh, torche torche nag tur bi sax indi na indi na euh, philosophie bi ak liñu conduite émission bi luñ fi wax dañ koy leeral pour askan wi. Mm-hmm. nee nga problème mu cantine yooyu. mais euh, fañ leen wutal pour yóbbu leen ko j' espère que amoon na délibération municipale quand même. non de xam nga délibération bi ñu fay indi. Hmm. ba nit ñi voté. li naan li ma lay wax ma projet Lamine Diallo c' est des projets encagoulés hmm. chaque jour du leer mukk day jël ay projet yoo xamante ne danaan na ngeen ma may ma signé partenariat ak ONG ak kii euh, entreprise telle pour mu defaral ñu benn marché et cetera xam nga loolu da ngay gis ni lii lu baax la.

est ce que am na lu ngeen fa mossa wax ni bëgg nañu def nangam ba ngeen voter ko te gisu leen ko concrètement. sur bari na boo jëlé stade bi nek marché ngelaw. muy stade Medina Fall boobu. indi woon nañ fa partenaire ñu ni leen ko def gazon synthétique moderniser ko et cetera ba nit ñi man fa entraîner goudi ak ak et cetera dara amu ci. yaa nga jël yu bari na école yo xamanteni actuellement ni ay bloc sanitaire ay douche le manque et cetera.

Euh, parce que man me japp que ci sama sama sama xel mu conseil municipal ñu def euh, euh, réunion orientation budgétaire laaj nañu les commissions ñu ne kat priorités. priorité nangam. ñu xayma ko ci budget bi teunk ko. donc normalement lolu ñu xayma ci budget bi population bi ne besoin par exemple créer un centre de santé à tel quartier. Nous avons besoin un terrain synthétique. ñu teugñ lolu pour voter normalement si c'est pas exécuté bu ñu dellu si waatee ci conseil municipal bi war nañoo xam lan moo tax la ñu dëxañoon tënk ko lii defuñu ko exécuté wuñu ko boo xoolee si infrastructure sport doo mën a taxaw ni lii la si commune bi infrastructure santé mënoo taxaw ni lii la si commune infrastructure amul benn lenn lay jël si compétence transfert yi nga mën ni commune Thiès Nord def réaliser na si mais njagal li ngay wax ni la daf may jàpp et pourtant ñoom dañoo falu faluwaat non falu nañu xam nga Thiès li ñu dal ñun donc les gens sont satisfaits non Thiès ñi ni ki ñuy fal ak ki ni gis mu taxaw seen kanam du ben. toujours loolu il faut ñu accepter ko Thiès bu ñuy fal dañuy jël ben Idrissa Seck tek ko suñu kanam Thiès waa gis Idrissa Seck bëgg ko voteel ko mais bu ñu paree benn Lamine Diallo la ñuy gis mu ñëw taxaw si kanam etc. cetera chaque jour non la ñuy dundee si commune yépp loolu moo am Thiès il faut ñu nangu ko waaw parce que bu ñuy falu ñoom kenn ñi ma wut a jël nekk taxaw ni man bu nu faloo man mi maay falu dañuy taxaw rek làqatu si ginnaaw Idriss bu Idriss Seck gagné ba pare nga gis si ay nit ñoo xamante ni amuñu benn compétence ñu ñëw taxaw suñu kanam malheureusement. Thiès waaye nag man maire yi ma gis fi yëpp ku ci nekk nee nga moom. bu ñu demaat élection bilan la ñuy ñëw teg boo demee Thiès est ki fa nekk maire ba jour bi voté xamul lu woon ni mooy nekk maire nga jël Thiès noor commune yëpp noonu la mel. kon fii ñoom amuñu bu ñu taxawoon ku si taxaw yëkkati sa loxo askan wi jàkkaarloo yow kenn du la fal mais dañuy làqatu ci ginnaaw Idrissa Seck askan wi fal Idrissa Seck mu jékkati taxaw tegal leen fi ay nit ñu cuune loolu moo am Thiès ñun loolu la ñuy dund. mais mais mais njagal li nga wax ni kon yéen kon cees y' a un sérieux problème même yéen APR au niveau national am ngeen problème ah Idrissa Seck est problème réel kon pour yéen. non xam nga xam nga dafa am loo xam ne nag en tant que politicien. il faut nga nam mm-hmm. ko. fii Thiès base Idrissa Seck la. te mënu ku taxaw fii ni Thiès waay bëgguñu Idrissa Seck loolu aussi da ngay wax lu la neex Thiès waay bëgg na di mais loolu aussi tamit dafa jar Thiès waay tamit jël ci tiré ci ay bëgg bëgg bëgg ba koy jàppale bu ñu demee ba ay mel élection yu mel ne ay élection locale ñu xam ne Idrissa Seck mais mënul nekk maire commune nord mënul nekk maire est nañu xool nit ñi nga xam ne wóolu nañ leen ñu dëkk si commune bi ñu fal leen mais doo votel benn Idrissa Seck boo xam ne après day taxaw na le mu suba mu indi la fi benn Lamine jàlloo wala benn Aliou Sow wala beneen Pape Diop et cetera loolu la ñu wax nii il faut que Thiès waaye yow si yu mel noonu parce que ñoom ñooñu képp ku si taxaw jàkkaarloog askan wi ñemewuñ ko sax ci ginnaaw Idriss Seck rek la ñuy làqatu. ñoom ñoom askan wi la fal. ñi ma dégg gum ñëpp nag nee nañ moom prochaine élection bilan la ñuy teg parce que ñoom ñoo ko liggéey. bilan moom da nga koy am. mais bilan moom bilan Lamine Diallo fii si commune bi ma nekk. Fassil rond-point Gent rond-point Jaxaaw. amul beneen bilan. mais Ndiaga est-ce que yow amuloo un problème particulier problème de personne entre yow yaak Lamine Diallo. non amuñu problème particulier parce que man maa ngi si commune bi. Hmm. chaque jour la euh, samedi passé man dem naa siège ji bi ñu demee leen fa teg yëpp jàllale ko man dama ko voté waaw bu dee si budget bi yëpp dañ koy voté pour bëgguñu ko bloqué si dara loo xam ne dina tax na amuñu sax majorité buñ ko bloqué mais lépp lu ñu xam ne projet bu baax la bu teg ko ñu ni nañ ko voté war na jëriñ askan yàlla xam nañ dañ koy voté mais bu paree doo ko gisaat sax doo kon yéen voté ngeen yu bëri mais tegu leen seen bët doo ko teg ko gis mais ñaga li nga wax ni euh, torche bi des na sax pour mu leer hein.

non loolu bari na même bilan bi ma la doon wax point ak hmm. koy commencé ko dañ ay de hmm. protection yo xam mo doon protéger jardin public yi. Hmm. mais bi ñu ba tabax def poto yi fofu la yam agul grilles du du après non lañ ko jox dama ni xam nga ñun ties gi lañ tek di fi projet bi lii la terme. mais bi mu mujjee ñëwaat naan non giri yi buñ ko fi defee bu nit jógee fële tiit di daw giri yi da koy baare et cetera loolu dafa tax ñuy kii nii dama ni ñun ñi ñu jiite ñëpp xam na ni dañoo télé ci commune Thiès bi te ñoom xam na ni bis bu ñu jàkkaarloo askan bi ci ginnaaw Idrissa Seck rek lañ mën a làqatu pour falo mais mënuñu jàkkaarloo askan bi naan fal leen mais sur le plan sur le plan euh, euh, culturel wax nañu euh, poste de santé yi sur le plan culturel sur le plan sportif lan la cees cees euh, Nord def lan ngeen tënkoon ci loo xam ne war ngeen ko mun a dimbale askan wi. sur le plan centre culturel mi ngi nekk fii ci deux voies ngent yi. Hmm. laaj leen ndax commune bi mos na si intervenir wala mu defal leen dara du si culture du si dara. Hmm. kon nag ñun daal li ñu bëgg mooy Thiès waay bis bu ñuy falati nañu xool ki làqatu si ginnaaw ngóor si ba pare hmm. mais fal ngóor si ba pare mu xëy indil la fi. ku mel nii loolu yaakaar naa war nañ ci baye xel. Euh, ci euh, lolou lañuy gennaté génnaatee euh, Thiès dem au niveau national jeexale ko autant wax ngeen li nga wax ni ci Thiès municipalité bi di ngeen teunk dara du ngeen ko gis mais autant au niveau national aussi ce ce leader muy président APR. Hein, président APR waxuma président de la République le président euh, de votre parti amna yu bëri yo xam digé won woon na ko ne bu ngeen ma falé dina def loolu il avait pris un engagement au nom de son parti mais bi ko falee mel na ni loolu teg na ko côté. non non limu mu diggee woon mi ngi ci xam nga bi ñuy wax boo xolé tout récemment inondation yi fi mujjé am. nga gis ni ba muy doog a toog li mu waxoon plan décennal ni li lañu wara def pour nit ñi nekk ci problème ndox mi jóge fi. ngent gi ga dëkk nekk fi ni ñi nekk ci ndox mi gis ngeen leen ñu ngi leen di tabaxal fi kër ci ZAC. ñom ñep pour déloger leen kii fi yooyu si yi mu diggee woon la bu pareegul ça ne veut pas dire que nekku ci. waaw nga gis ni mo ne dina war fexe ba askanu Sénégal manque de courant bi ñu nekkoon bi muy jël mu jëlee len ci loolu loolu ku ne xam na ne coupure courant yi wàññiku na. nga gis ni dina fexe ba yombal dem ak dikk bi boo jógee Thiès bëgg dem Dakar. dan def ay 3 heures de temps 4 heures de temps ci yoon loolu wàññiku na. yu bari yu bari yo xam ne nako ci côté yooyu gis nañu ko mais aussi euh, engagement politique parce que par thème la engagé pour aller au pouvoir.

non non non xam nga. sobre mooy li nga xam ne lii laa war a def ma def ko automatiquement rapidement. sans tambour ni trompette non mi ngi si loolu. vertueuse ku def loo xam ne waroo ko def ma ne la lii waroo ko def mais bu dee ci ñu nekk ci partem la mun nañ ko def. bu dee ci ñeneen ko def xam nga xam nga loolu loolu. nit ma accu accusé moo gën a yomb. Hmm. mais indi ay preuve moo jafe. Hmm. li ma def léegi saa waaye bi ma waxee damaa indi ay preuve ni moom lii la fi def ak lii. Hmm. yaa dégg mais taxaw wax rek ni diw nekk ne lii wala diw def na lii loolu yomb na. mais li ngay wax na nga mën a indi preuve bu leer ni lii moo am. loolu bari na loolu nag comme Sénégal ni muy doxee opposants yi moom. dañuy critiquer mais indi preuve moo jafe yombul. yow tu es la es de l'APR Idrissa Seck euh, wax nga ko euh, loo ci mun di dégg tamit ku am doole la au niveau de Thiès am na ñuy rumadaat euh, lëkkaloo bu Macky Sall war a mun a defak ak Idrissa Seck en tant que homme politique te nekk au niveau de la l'APR naka nga gisee est-ce que lu lu war a jaar la yenu maanaa pour l'intérêt du pays. noo ko non pour l'intérêt du pays. Hmm. président ak euh, état réew koo gis. Hmm. dafa war a am ñu gouverne am ñu opposé wu. Hmm. loolu mooy intérêt Sénégal. mais mënuñu jël opposant yeeg ñëpp ñu dugal leen ci biir gouvernement man li ma jàpp mooy. il faut mu am ñuy gouverner am ñuy opposé wu loolu mooy tax réew mi jëm kanam quoi. donc euh, waxtaan boobu soo sañoon daal ñu xaw ko teg. Euh, Idrissa nekk à l'opposition yow nga toog fële. waaw peut-être foofu la ko war a gën a mën a jëriñ. foofu la ko war a a jëriñ Idrissa Seck à ah, l'opposition. Ah, mu leen di dii nga di wax ne lii baaxul nit ñi mun ci. loolu day soññ nit pour mu liggéey pour mu gën a liggéey. Ah, jërëjëf euh, Ndiaga kontaan naa trop ci teewaay bi émission bi daanaka jeex na. yaa ngi woon sa émission torche ñu doon jéem a leeral am na lu jota leer. Mm-hmm. mais ba léegi am na yu jot a lëndëm xam naa dinañ ci dellu si waat ma bàyyi di la gërëm di la sant parce que émission bi dinañu permetre ñu mën a wax li nga xam ni moom moo xew peut-être suñu réew ak suñu commune ak suñu quartier yëpp kon loolu ñu ngi leen siy gërëm bu baax di la sant ak manière bi nga doxalee émission bi tamit ñu ngi leen siy remercier bu baax jërëjëf sëñ Fall jërëjëf euh, ma koy sant bu baax yéen mbokk téléspectateurs yi mbokk internautes yi aussi ma leen di euh, jaajëfal bu baax baax di am mbégte ci ni ngeen ñuy toppee ci seen émission toog torche ñaaru ayu bés yu nekk ñu leen koy amal di jaajëfal bu baax ñi nekkoon ci technique bi bobet madame Sen, Daouda ak ñëpp ñi nga xam ne participé nañu ci émission bi yéen ñi doon seetaan aussi ma leen di jaajëfal di leen ñaanal panaanum jàmm di leen jox dig daje dans deux semaines c'est une émission torche jàmm ak jàmm bu beneen Inshallah. allah.